mu nga gars yi comme ni ngeen koy laajee boobu ba léegi mu ngi noonu dañ ciy ñëw donc muy li nga xam ne mooy classement bi nga xam ne moom lañ war a am ñun ak Bénin gars yi vidéo bi du yàgg juste dañ leen koy jox très rapidement mais après mun ngeen commenter bu leen fàtte aussi di abonné ah abonné leen parce que euh, chaîne bi fii la lépp loo xam ne bokk na ci lu jëm ci équipe nationale fii lañ koy joxe information à chaud jox leen lépp ngeen dëggandoo ko ngeen jotandoo ci lu mu gën a gaawee gars yi mu ngoog ñu ñëwaat ci classement bi nga xam ne moom lañ war a xalaat ne moom la ñu war a proposer euh, ci nga xam ne moom mooy match bi ñu amal ak Bénin d'abord gars yi lu ma gis ci camp yi foog naa foofu moom changement do ama ah. camp yi ñëpp xam nañ ne Edouard Mendy lañ ca war a teg donc buñ tegee Edouard Mendy ci kan euh, yi euh, dañuy dem ci euh, latéral droite la ñu commencé en latéral droite bi latéral droite ñu ngi am ki nga xam ne moom mooy Sabali Sabali gis ngeen performance bi nga xam ne def na ko fan yi yëpp donc mu nekk koo xam ne latéral la boo xam ne yaakaar naa ne foofu kenn dootu ko naatable di wala kenn dootu ko am xel ñaar que ne moom moo fay nekk vu que Aliou euh, yokk na foofu en renforcer na foofu euh, à l'occurrence euh, absence bi nga xam ne moom la Bouna Sarr def ñu jëli Diokou mais Diokou dafay xaar gars yi bu ñu fa jógee dañuy dem ci axe central bi axe bi dinañ ci am ñaaran ñaari man damay wax Koulibaly Koulibaly nag moom yaakaar naa foofu du question mais nag Koulibaly kuñ koy booleel kooku mooy nekk question bi man nag damay yàpp ne Pape Abdou Cissé la ñu andiwaat ah Euh, Pape Abou Cissé la ñu andi gis nañ ko performance bi nga xam ne. def na ko ci contre euh, Égypte mu nekk performance boo xam ne cent pour cent réussite lay doon vu que aussi tamit Abdou Diallo euh, blessé na te boobu ba léegi gis nañ ne nekkaatugu ci cent pour cent donc ñu jëli ki nga xam ne Pape Abou Cissé boole ko ak ki nga xam ne moom mooy Kalidou Koulibaly ministre de la défense sénégalaise. gars yi maa ngi doon xalaat naan pourquoi pas ñu xool fa ki nga xam ne moom mooy Abdou Diallo mais ba léegi Saliou Cissé mi doon tiit ak blessure bi euh, ñëwaat na bu baax a baax donc kon dañuy am foofu Saliou Cissé donc euh, mu ngi noonu ndax Saliou Cissé tiitoon nañ ne sax du bokk ci liste bi mais ñëwaat na ak force ñëwaat na ak li nga xam ne moom mooy euh, wér-gu-yaramam donc dañuy am latéral gauche ki nga xam ne moom mooy Saliou Cissé gars yi fa jógee jógee ñu dem fi nga xam ne moom mooy ci milieu terrain milieu terrain moom xam naa ne ah, ñaar ñi dañuy de d'office ku ci mel ne Idrissa sa Gueye ak Nampalys Mendy ñoom dañ leen ni bàyyi foofu kuñ leen di booleel nag dafay jouer comme 10 man sama proposition mooy Moustapha Nam pourquoi Moustapha Nam parce que gis nañ saison ren bi booy bi lu mu def ah, booy bi lu mu def c'est extraordinaire instant bi moom moo nekk sujet d'actualité fële sa France mu nekk koo xam ne xale la koo xam ne am na réflexion waaye automatisme moo nekk li nga xam ne moom mooy point fort mu nekk koo xam ne aussi tamit jot nañu may ko tamit sens bu baax a baax a baax a baax équipe nationale gën koo gëmal euh, aussi tamit euh, gën ko wan ne ko équipe bi euh, dañ ci bokk waaye dañ fi am place am nañ fi tamit ku ci mel ne Pape Matar Sarr mais man sama préférence daal mooy ki nga xam ne moom mooy Moustapha Naam gars yi attaque bi dafay am tuuti soppi ko parce que buñ na attaquant sénégalais xel yëpp day dem ci Sadio maane mais man mun bu ma sañoon euh, match bii nii euh, Sadio Mané day xaar ah Sadio Mané day xaar parce que gis nañ euh, fin saison bi nu mu méttee ci moom teg ci Ligue des champions boobaak léegi amul temps de repos teg ci perturbation psychologique par rapport ak transfert bi nga xam ne ñu ngi ciy coow boobu ba léegi day dem du dem wax ji bari na donc gaynde gi mag gi gaynde gu mag gi sax laa koy woowee jot na ñu may mu xaw a reposé wu tuuti xaw a dal xelam tuuti parce que tamit bu leen fàtte ne marché yi du benn kese am nañ beneen marché bu ñuy xaar donc ba foofu damay jël ailier droite bi euh, attaque droite bi ma dugal fa Ismaïla euh, non euh, Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye di ko wax bienvenue encore di ko wax dalal ak jàmm mu nekk gaynde goo xam ne dafa yàgg bëgg équipe nationale dafa yàgg bëgg et fii gagné fi ay trophée parce que man lu tax ma ne Iliman Ndiaye il faut ñu def le tout pour jël ko mooy que Ndiaye dafa wax ne euh, moom rêve mooy gagner équipe euh, gagner coupe du monde avec l'équipe nationale du Sénégal juste suñu qualifier coupe du monde donc loolu nu am na lu ñuy xaw nuru quoi am na lu muy xaw a mbébét de sa fekk gaynde gi may leen ko sens bu baax donc bu ma doon di moom laay teg ci euh, côté droite ma teg fa Iliman Ndiaye ma jël attaque bi ki nga xam ne moo daan pointe toujours muy Famara Diédhiou ma teg ko fa yaakaar naa côté droite bi tamit yaakaar naa côté gauche bi ma jël Ismaïla Sarr ma teg ko foofu noonu gars yi onze yooyu laa xalaatoon ah onze yooyu léegi comme d'habitude niñ ko doon defee toujours euh, fii ngi moom euh, du man rek maay wax waaye su ma waxee ba pare yéen yéenay bind ah donc aca les go ñu dem ci commentaire yi ngeen wax yéen it noo leen gisee idée bi noo leen gisee classement bi di wax suba yéen ñëpp rendez-vous fële ga terrain bu neex ba terrain bu rafet ba ñu dem supporter waat jël ndam li di wax gars yi ne jam ñaajo moom kuy dof doflu ba ñëw fa ah la fay fekk xam nga ko waaw quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix jam ñaajo moom ku ko dul xalaat fu la neex defal gars yi kon mu ngoog ba ci kanam ci kanam a kanam ak yeneen vidéo